itteb jàmbur bu mu la yitteel sab taab na la doy li nga xam te yàlla na bëll ko te yaa ngi koy def asir tuut bu ko nit ñi xamoon am nga loolu doy nekkuma fi di xelal ñuy def nag sudul noonu waaye damay yeete pour ñu rafet njortu ba noppi maandu ki baax ak ki bon ku dul yàlla xamoo ko moom ma yor li sib di bind ku ko neex la koy jébbal nit ki nag bu ko fekk mu am lim am rek nga ñee ko parce que xamoo nu mu def ba am lim am parce que am am mën naa gaaw am am mën naa yéex yaa ngi xale mi ngi rak ab wërsëg magam mag ab wërsëg gone doom ab wërsëg papaam jaat juddu ëpp demin ci kër gi xale bu jigéen yor na kër taxul muy jaay boppam bis penc nar a neex ndax lu ne dana fa xew dangay gën a yëngu nit ki sax mu njëkk laa tekki ngay jàppale nit ki mu dem ba ëppale la ngay xeem nit ki mu am bay jaabal ki njaan sarax am bay géejal nit nekk na ci benn mbir di làmbaatu daj fa lu ne su na jàngal keneen koo dem ba raw ko ci diggante xef ak xip yàlla mën na fa lu ay programme la yor nu ko neex la koy tegee Sénégal ndax dina ma sa tegu si yoon bi ndax ndam li dina ma si ñëw kuñ fi takkal ndombal tànk naka ngay def ba génn si tànk tàppal xol yi mu doon benn jàmm du fi mas am xëccoom place yokk na soxor delloo si leen xel yi.